Pape Ibrahima Senghor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Pape Ibrahima Senghor nga nekk membre de la coalition Diomaye président président aussi euh, du mouvement Kaolack bi gën euh, déjà euh, mbirum génnuk président de la République ci conseil supérieur de la magistrature euh, tontu bi ci président tontu est-ce que doy na la waaw wala mais tontu bi président tontu je crois moom mooy tontu bi aussi. maanaam parce que xam nga ñun bu ñuy def campagne suñu programme de campagne dañoo waxoon que ne président de la république dafa war a conseil supérieur de la magistrature parce que moo tax bi président euh, ñu faloo président oote ay assises de la ñu oote assises yi point boobu bokkoon na ci point yi te bu ngeen fàttalikoo président wax na ne am na consensus c'est d'application immédiate yi des mooy yi nga xam ne am incidence financière ak bi nga xam ne d'accord ci te problème conseil supérieur de la magistrature dafa nekk problème boo xam ne amul juboo si acteurs yëpp loolu moo tax bi amee président wax ne comme noonu la demee te magistrat seen bopp ñëpp ñi si bëri ñoom ñoo wax ne bëgguñ président génn conseil supérieur la magistrature moo tax président ne nee na comme noonu la demee te ñoom ñooy les principaux concernés nañ leen dégluwaat ñu waxtaanaat ñu wax ñoom ñu gën a wax lan moo war a tax président wara génn conseil supérieur de la magistrature maintenant bu dee ñoom ñi nga xam ne ñoom lay intéressé ñoom wax nañ président loo xam ne mun na ko convaincre wala loo xam ne dal na xelam pour mu bañ mu toog ci conseil supérieur de la magistrature incha allah su boobaa dina toog te mu xool naka lay toogee waaye bu fekkee nag liñ koy wax nekkul loo xam ne convaincre na ko première décision bi nga xam ne mooy décision bi pour l'instant moom la jëlagu muy génn la magistrature boobu noonu moom la ko di appliquer waaw donc loolu la président ama parce que président nee na moom amul benn problème il pas euh, amul benn problème pour vraiment toog conseil mbaa génn conseil parce que nekk loolu moo gën a pour moom waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nànk magistrature bi ñoom seen bopp bu bu dee ñoom ñoo wax ne bëgguñ président génn il faut ñu toog waxtaan na ñoom ñu wax ñu lan moo tax bëgguñ président génn loolu président loolu kese la wax Euh, ñu wax si euh, sorti Amadou Ba Amadou Ba ñu mën ko jàppee comme la chef de l'opposition euh, moom nag ci wàllum Barça Barsax émigration irrégulière nee na faaw ñu teg condition yoo xamante ni ndaw yi dinañ am dundin bu ànd ak dignité daal lan nga si mën a wax. waaw d'abord damay njëkk di vraiment lu li nga xam ne moo am muy suñu suñu doom yooyu noonu. gaañu si si loolu vraiment ma koy ma koy ma koy méttirlu bu baax a baax a baax waaye damay faral di wax rek ni bu ñu fàttali ne premier ministre Amadou Ba y' a trois mois ma ne ko premier ministre du Sénégal bokk si gouvernement Macky Sall ah te je crois que boobu temps boobu la Barça wala Barça bi gënoon a tar. te ñoom defuñu fi benn solution parce que ñàkk def solution ak ñàkk am solution loolu moo bokk na li waral tax Sénégal yi suur leen génn jële leen fi donc vraiment moom il est mal placé pour jox ñu ay leçons de gouvernance par rapport à ci ci ci problème boobu noonu mais li si mënta am rek mooy euh, le président Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ak tout le gouvernement ñu ngi si taxaw si tànk yooyu noonu pour mun a offrir xale yi Sénégal pour mun a offrir ndaw Sénégal ay conditions de vie yoo xam ne. kenn dootu soxlaati di génn si réew mi naan yaa ngi dem feneen parce que dinañ am dëkk boo xam ne dina naat incha allah si loolu la ñuy liggéey te am nañ yaakaar que ni a tànk yi ñuy commencé gum teg bu soobee yàlla suba ginaa suba euh, benn jeune sénégalais dootu génn te au contraire ñi nekk ci bitim réew ñoom ñooy bëgg a ñibbisi parce que xam nañ ne Sénégal na nekk réewum naataange. hivernage 2024 déjà euh, benn taw ñaari taw euh, mbirum inondation yi taxawaat loo si mën a wax ak milliards yi ñu si def yëpp may njëkk a def mooy li may njëkk a def mooy vraiment damay damay métitlu ah, métitlu li xam ne mooy euh, mooy inondation yi surtout sama mbokk waa Kaolack gi parce que tey jii nii vraiment depuis bàkk démb ba léegi Euh, sama mbokk Kaolack waaye ñu ngi si condition yu métti muy Kaolack di Touba di aussi Ndakaaru di métti di lool waaye question bi ñu war a posé mooy année sept cent quatre vingt cinq milliards yi ñu waxoon ne dugal nañ ko si problème inondation pour régler pour inondation au Sénégal tey jii nii il a fallu juste benn taw pour vraiment ñu ñu dund coono boobu noonu donc loolu la ñu war a laajte mais li su mun tax mooy président de la République premier ministre Ousmane Sonko ak le ministre euh, de l' assainissement ñu ngi ci boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey pour xool naka lañ mun a lañ mën def pour instant nii liñ coono bi ñu nekkee nii si population bi nekkee ko ñu mun ko saafara nu mu gën a gaawee te heureusement euh, depuis y trois mois ñu ngi siy dox tànk ñu ngi siy lijjanti loolu moo waraloon bokk na si taxoon chaque premier week-end chaque mois président oote pour ñuy set setal di defaraat di di di prévoir parce que ñu ngi doon sóoraale lii beneen point bi may wax mooy vraiment di ñaaxaat sama mbokk yi surtout mbokk Saalum Saalum ñu pour wax leen ne ak population wax leen ne kaniwoo du pour sànni euh, mbalit kaniwoo du pour sànni xar bu dee béy bu dee wala leneen leneen kaniwoo yi vraiment dañ ko defar pour mun a ndox mi ñu mun ko évacuer bu baax donc loolu c'est un problème de conscientisation xam ne ñu ngi si o population bi te am nañ yaakaar que ne bu ñu jógee si lii population yi dina gën a consciente xam ne vraiment loolu lu si si loolu lañ leen di oo en tout cas ñu ngi ñaan que lii mu incha allah mu nekk un mauvais souvenir te am nañ yaakaar ne conditions yi euh, euh, ak solution yi ñu ñu commencé teg bu ñu ko tegee bu ñu ko continuer incha allah rabi lii dina nekk un mauvais souvenir pour la population. Mm-hmm. Euh, journée set setal yi nga xam ne président Diomaye déjà lancé na ko d'ici aux population bi surtout les samedis le choisir loo si mën a wax. waaw mm-hmm. mais xam nga loolu yëpp dañu doon prévoir lii nii parce que dañoo dëkk il faut mu set te pour mun a set il faut que population bi yëpp yëpp dugg si donc te ñun lépp lu ñu def rek dañ koy def waxtaanee ko day boole ko ak population yi yëpp te président wax ko keroog bi mu demee nii Nigéria nee na bi mu gisee engouement bi am set setal bi am vraiment il était fier de son peuple voilà donc euh, incha allah rabi tam ñu ngi si owaat encore population bi gën ko approprié wu xam ne c'est un programme boo xam ne pour ñun la pour la population la te am naa yaakaar bu ñëpp approprié woo bu soobee yàlla euh, d'ici peu dinañ gis un Sénégal propre un Sénégal vert mais aussi un Sénégal prospère incha allahu beneen ponk bu am euh, solo CEDEAO ñu bari di laaj est-ce que président Diomaye dina mën a incarner leadership bu Sénégal et aussi est dina mën a euh, boolewaat réew yi ji leen xam nga pour commencer Sénégal moom dafa mës a incarner leadership au niveau au, au niveau africain donc loolu nekkul lu bees mais li si gën a bees rek mooy tey jii nii dafa nekk koo xam ne ki koy incarner dafa nekk koo xam ne c'est le mieux élu et il a très bien élu ah donc muy jeune en plus vraiment bokk ak euh, presque naataangoom yi nekk si AES bi yëpp mu bokk ak ñoom presque tranche d'âge donc loolu mu nekk en plus am naa yaakaar bu baax a baax a baax ne mission bii ñu ko dénk bu soobee dina ko atteindre parce que c'est quelqu'un qui est aimé bi xam ne vraiment gis nañ naka la ko peuple a fale mu nekk un exemple pour tout le monde un exemple pour l'Afrique et pour le monde te boo fàttali ko barki démb rek en France si élection yi tubaab seen bopp am na ñoo xam ne nee nañ nañ jël exemple si Sénégal donc loolu ça veut dire ce que ça mais beneen biir li si li ci war a wax a tamit mooy lool eh, loolu le président Bassirou Diomaye Faye wax na ko barki démb nee na il faut ñu réformer euh, CEDEAO parce que tey jii nii population yi nekk CEDEAO li ñuy gisee CEDEAO mooy juste un conglomérat de chef de chef d' état presque un syndicat de chef d' état donc euh, li muy oote mooy ñu oote ñu def ay réformes bu ñu defee réforme yooyu si si si si si CEDEAO am naa yaakaar ne population nañu am beneen gis-gis ci CEDEAO te su boobaa réforme euh, mesure yi ñuy jël CEDEAO ak dina nekk mesure yoo xam ne ñëpp nañ ci tënku te ñëpp dinañ ko dinañ ko accepté mais tant que CEDEAO mi ngi doxee nii muy doxee nii euh, problème du du du du mais comme président Bassirou Diomaye Faye moom lañ dénk vraiment mu mu mu doxal leadership boobu noonu am nañ yaakaar que ni incha allah bu yàggul tuuti rek di ngeen gis ne CEDEAO changé na bu baax a baax a baax parce que xam nañ ne dina réussir mission Pape euh, Ibrahima Senghor beneen ponk bu am solo muy gis nañ ni nguur gu euh, seen nguur gi sax la ñuy wax euh, ba ñu toogee ba léegi dañoo daw wutali marché yi commerçant tablier yi nag pratiquement ñu daal di leen déguerpir ci ay zone yoo xam ne jàpp nañ ni jaaru yoon maanaam ni ñu occupé mbedd yi ñu jàpp ni jaaru yoon ak tamit marché yi mbir mi jur coow lu bare bari naka gisee politique bi. waaw en fait man pour man euh, débat boobu ni ñu ko posé moo noonu li ñu war a posé débat bi mooy est-ce que tey jii seen nañ continuer wala Dakar bi am xar kanam bi Ndakaaru am tey loolu benn la parce que boo seetloo tey jii nii euh, euh, Dakar fépp foo tourné marchand ambulant yi occupation anarchique lieu public a trottoir yi loolu moo si am donc premier ministre nee na loolu nag vraiment il faut ñu changer doxalin loolu kese la. parce que mënuñ continuer di di agresser suñu cadre de vie di agresser vraiment euh, suñu suñu suñu espace de vie te loolu pour comme ni ko premier si waxee responsabilité bi euh, euh, collectivités locale yi xam ne ñoom utum utum taxe ak utum patente moo leen yóbbee ñu bàyyi. jox autorisation ku nekk mu laal fa ko neex lool mu ngi si euh, population yi nga xam ne seen bopp ñoom des fois ñoom ñooy jël seen kër transformé ko ba pare di ko luyee tablier ak kii loolu beneen nag si beneen responsabilité mooy bi nga xam ne état dafa am na si responsabilité parce que état moom mooy peut-être que bàyyi nañ on a trop laissé am nañ yaakaar ak ko premier ministre waxee incha allah bu waxtaanee ak ambulant yeeg ak yëpp dinañ trouver ay mesures yoo xam ne nañ leen permettre ñu recaser leen foo xam ne dootuñ amati euh, di euh, di di taxaw si mbedd yi parce que boo seetloo depuis 1976 il y a un décret qui interdit boo xam ne moom mooy aaye njaay si eh, eh, voie publique te malheureusement décret boobu nag ba léegi kenn appliqué wu ko loolu kese moo si am te permis wax na ko dinañ jël tout les mesures nécessaires pour que vraiment cadre de vie bi ñu changé ko euh, mobilité urbaine bi mu gën a am solo te loolu ak bu ñu ko boolee ak accompagnement bi nga xam ne war nañ ko def accompagner ko les ambulants parce que comme dañoo oote souveraineté alimentaire donc nañ jël ay mesures yoo xam ne ni mun a permettre ñi xam tey ñooy ambulant que di jógee dëkk ba di ñëw Ndakaaru nañ mun a toog seen dëkk liggéey fa si mbay mi ak si yeneen yeneen yeneen domaine doo xam ne dootuñu soxlaat di ñëw fi di ambulant di ñëw vraiment di di si dund si yenn coono yi incha allah rabbi euh, ambili procédure d' embellissement et de déguerpissement bi nga xam ne moom la ñu entamé dinañ ko continuer pour mun a jox capital Sénégal beneen xarkan xarkanam bu bees bu rafet bu ji bu bu rafet vraiment comme ni ko yeneen dëkk yi amee am nañ si yaakaar ne bu bu yàggul dara incha allah dinañ gis euh, beneen Dakar bu bees beneen xarkanam bu bees en appui avec toutes les collectivités locales bu soobee mm-hmm. mais lu mu a wax mooy il faut ñu respecter suñu cadre de respecter suñu environnement. dernière question Ibrahima Senghor euh, ki nga xamante ni mooy premier ministre du Sénégal euh, Ousmane Sonko euh, dalal nañ ko fële ca Touba ki ko amal di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké noo ko gisee. waaw mais xam nga dama jàppe ne noonu rek la mën a demee parce que sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ñëpp xam nañu rôle bu mu depuis boobu ba léegi bi mu toogee si xale si xilaafa bi ak avant mi toog ak yeneen xalif généraux yu ko jiitu ak yeneen yi nekk Sénégal rôle bu ñu joué si euh, stabilité bi Sénégal am donc dañ siy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaanal xalif généraux bi yàlla ñu fi yàgg te ànd ak wér euh, continuer di ñu jàppale di ñu gunge di ñu tette parce que vraiment àdduna yëpp loolu la ñu ñëwee donc ñu ngi rafetlu visite boobu noonu xam ne tey premier ministre Ousmane Sonko def na ko dem seeti ku sell kooku noonu te am naa yaakaar ne bu jógee foofu noonu incha allah yeneen yeneen dëkk diine yeneen kër diine dinañ fa dem aussi waxtaan ak euh, sëriñ si waxtaan ak kilifa yi exposé leen aussi programme ak liggéey bu ñu bëgg pour Sénégal ñu ja ñu ñaanal ñu jàppale ñu incha allah Sénégal lool kese la soxla donc mm-hmm. loolu nekkul dafa nekk nekkul loo xam ne lu extraordinaire la pour ñun léegi parce que sëriñ si fii lañ dëkk xam nañ di ñuy dund te ñoom ñooy suñu kilifa. waaw donc tey jii nii ku si ku si am métit wala lenn si sëriñ si ngay dellu donc dañuy rafetlu lool te xam na am naa yaakaar dama jàpp rek juste rek problème de calendrier moo amoon moo posé woon moo taxoon ba léegi euh, premier Ousmane Sonko demul woon waaye gis ngeen ne président Bassirou Diomaye Faye bi mu bi mu faloo dès le premier jour demoon na seeti sëriñ euh, sëñ Cheikh sëñ Mountakha mu sell mi dem seeti sëñ Babacar Sy su di commencé di dem seeti yeneen yeneen kër diine incha allah dinañ ko continuer pour mun a dem seeti sëriñ si parce que euh, xam ñëpp xam nañu rôle bu rôle bu ñuy joué si si si si Sénégal te jii bu Sénégal stable on le doit en grande partie à nos chefs religieux. Euh, Pape Ibrahima Senghor maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf merci may fàttali ni Pape Ibrahima Senghor membre nga ci euh, coalition Diomaye président nekk président du mouvement Kaolack bi gën ñu lay remercier bu baax a baax.